sans transition, on mm. passe à notre sujet. Tu peux transiter, <laughs> à notre sujet. Donc aujourd'hui, euh, l'élément que j'ai amené dañuy expliquer lan mooy réseau social. mu ne la bu ko faale bàyyi en fait bàyyi ko euh, on est parti voir des experts. Mm. ñoom ñu expliquer ñu lan mooy réseau social. en plus de ça euh, ils nous ont aussi expliqué comment on prend l'effet amplificateur naka le réseau social di amplifier benn phénomène. Mm. et après on nous a donné benn exemple boo xamante ne ni moom moo déclenché yëpp. Mm. donc dañuy seetaan euh, reportage bi après on revient sur le plateau pour de plus amples informations. D'accord. Développement des nouvelles technologies assisté à une ère où les réseaux sociaux ont réussi à devenir un grand phénomène, où toute cause qui mérite ou pas d'être soutenue est très fortement suivie par les internautes. Des millions de personnes sont constamment connectées à toute heure et chacun est en mesure ou susceptible de devenir un protagoniste d'une cause, d'une idéologie, entre autres. Avec l'option des partages dans certains réseaux sociaux, la facilité de la propagation des contenus peuvent quelques minutes. C'est ainsi que plusieurs mouvements ont été la cause d'un aboutissement conséquent, ce qui relance le débat sur le pouvoir des réseaux sociaux à amplifier les phénomènes. Qu'est-ce qu'un réseau social? Un réseau social, c'est un outil pour permettre à quelqu'un de faire passer une information ou de communiquer. Il s'agit d'une plateforme qui permet, de casser les barrières du virtuel. Par exemple, les personnes qui sont Internet, ils utilisent, euh, qui sont dans divers endroits. Le réseau social est devenu euh, un outil de communication de nos jours, un outil de combat pour certains. Impossible d'entrer sur Facebook, Twitter ou Instagram sans être touché par l'ampleur des mouvements. En fait, c'est le fait euh, qui, qui est le partage. Maintenant, pourquoi ça l'amplifie C'est parce que quand une personne lâche une, lâche une information et qu'il y a une possibilité à un autre milliard de personnes de pouvoir utiliser cette, euh, véhiculer cette information. Du coup, chacun l'adapte. Tu as 5000 amis, tu as as 10 amis, tu as 20 amis. Le fait de partager fait l'effet, euh, crée l'effet viral. Je crois que le, le phénomène déclencheur euh, euh de, de de, de, de, tous, de, toute cette, cette réalité mouvante-là à laquelle on ne peut pas vraiment donner un nom. Je crois que c'est d'abord ce qu'on a appelé les printemps, le printemps arabe et les révolutions arabes. euh, où vraiment on a vu que euh, ça a été des outils, notamment Facebook et Twitter, des outils pour mobiliser dans ces pays-là euh, des citoyens et leur permettre de porter le combat révolutionnaire. Et on a vu un peu le succès qu'il a eu. Si par exemple il n'y avait pas eu les réseaux sociaux, euh, la chute de Ben Ali en Tunisie aurait mis à peu près trois ans. Et grâce aux réseaux sociaux, ça n'a mis que trois mois. voilà c'est un reportage bu ñu réalisé en français di nga a comprendre ci wolof euh, réseaux sociaux yi ni mu mënee ngandal phénomène. Mm-hmm. en fait li ñu expliquer mooy d'abord lan mooy réseau social réseau social benn. Euh, euh, internet bu ñu utiliser la online. Mm. loo xamante ne yow da nga ciy mën a di connecté wu. Mm. Euh, am si say xarit. Mm. di mën a partage ay informations wala di défendre ay causes. donc euh, comment le réseau social amplifie benn phénomène maanaam rëyal ko. sa à dire yow mën nga am benn cause boo xamante ne ni daf la tenir à cœur. nga mm-hmm. koy xeex. Mm-hmm. Euh, ça prend plus dafay gën a gaaw nga jàllale ko si réseau social que nga que nga xeex ko nii dans la vie de tous les jours. parce que fii réseaux sociaux yi dëkk yu mag yi après ñun fii on n'a pas euh, naka la ñu ko tuddee euh, internet bi noonu wul tasaaroowul euh, bu mm-hmm. baax mais mm-hmm. les gens ont tendance à dire que ñu ngi bëgg a dem ci réseaux sociaux yi gën a puissant sax que médias yi bien sûr et c'est en phase en fait d'être plus puissant que les, les médias, médias parce que tey jii nii ku am ku am benn cause booy défendre mm-hmm. par exemple ñu ngi génn ci référendum bi on a vu la campagne du oui ça a été beaucoup mené sur les réseaux sur, sociaux voilà la campagne du pareil. Mhm. Mhm. clip bi xumaan génnee. Mhm. si réseaux sociaux yi lañ lañ gis. lu koy njëkk gis et avec le phénomène des partages. dafay dem parce que yow instant bi ngay connecté. autres personnes ñu ngi connecté. si dans ton réseau tu as 5000 amis tu partages c'est 5000 amis qui voient. et parmi ces amis là am na ñeneen ñu nga xam ne su leen intéressé dañuy partagé. affaire bi def day def euh, effet effet boule de neige. et que ñëppay gis. défendre sa cause. yow euh, Mado partage mon avis. Hmm. c'est fini elle partage l'événement et après day pousse. Hmm. xaritam yi lay inbox ne leen jàppale leen ma sama affaire bi day dem. Hmm. après day def comme phénomène viral. lool la wax ni instant yi printemps arabe bi avec euh, euh, chute Ben Ali bi normalement ça devait faire trois ans mais ça ça fait trois mois. xoolal loolu de trois ans à trois mois. donc doole boobu nga xam ni réseaux sociaux yi am na ko. bëri na ay mbir yu positif mais noonu la bëri itam yeneen yoo xamante ni. si doon souvent ñu bëri dañuy ragal. exactement si loolu laa doon ñëw en fait ni mu mënee amplifier. Mm-hmm. Euh, phénomène positif. Mm-hmm. noonu la mënee amplifier phénomène négatif. Mm-hmm. c'est-à-dire on assiste aussi aux harcèlements. parce que am na benn par exemple benn groupe bu bëggee yàq deru mado c'est fini c'est c'est le c'est le même principe. partager affaire yi nit ñi ça par curiosité que la ñuy dugg. affaire bi de phénomène viral. donc c'est ce qu'on appelle euh, le euh, comment le sexy sexe criminalité. lañ c'est c'est un nouveau terme en fait qu'ils ont utilisé. bu bokkul ak cybercriminalité bu bokkul ak cybercriminalité pour pour euh, en fait wane ne que ne amplificateur yu réseaux sociaux yi ça a un bon effet comme un mauvais effet parce que même école élèves yi. Mm -hmm. c'est pareil ils ne maîtrisent pas en fait. l'outil te dañ koy jël di ko utiliser voilà à yenn saa yi à des fins personnelles comme on a mm. dit un jour dans cette émission mbedd la léegi et que mbedd la sax chacun est libre de dire social, de, de passer de marcher de toog de wax lu la neex exactement réseau social euh, mbedd la te euh, bu jëlee Facebook par exemple dafa am benn euh, date age boo xamante ne si nga si war a dugg mm. mais xale yi léegi dooj nañ dooj bi tax ne dañuy ñëw falsifier seen âge comprendre da ngay gis ku ñëw bind je suis né en 1900 tu vois il y a pas de paramètre qui puisse vérifier en fait que l'enfant est mineur mhm. ou il est majeur mhm. et ça c'est on va dire que c'est ça fait partie des failles en fait parce que lépp loo gis am na ay failles mhm. mais failles yooyu en fait si le pervers yi tamit di dugg di def brèche di di créer ay faux comptes oui. harceler des femmes mariées di harceler ay xale tu vois euh, par Facebook wala par euh, euh, Twitter wala même LinkedIn nga xam ne à la base c'était pour pour boulot léegi nit ñi ñu ngi ciy doxaanante. après ñun mag ñi peut-être euh, euh, lu ñu dal ñun ñoo ko tey mën nañu nekk suñu ay euh, naka laa koy tuddee suñu ay sécurité wu bopp. Mhm. mais pour xale yi il faudrait que maintenant que parents yi gën di superviser xale yi ci Facebook. exactement j'ai entendu benn interview bu la fuite defoon il disait ko moom dafa tere doomam léegi réseaux sociaux yi Facebook par exemple aujourd'hui boo ko teree sa doom mën na laxatu di ko def parce que xale yi léegi ñu gën a ñor ci bien bu ñu ko mënul ba leen ko mënul tere mu am supervision mu am euh, naka lañ ko tuddee. Euh, contrôle contrôle mu am moi je pense que actuellement on n'est plus à l'ère où on interdit à un enfant de faire quelque chose. parce que boo ko ko teree fii xale tamit dinañ ko ko lijjantil fee. Mm-hmm. Mm-hmm. donc le plus important c'est que nga nekk xaritam. Mm-hmm. de telle sorte que yow du la nëbbatu. comprendre nga yow en tant que parent nga nekk ci biir Facebook bi bien vrai qu'il y a des paramètres mais nga nekk xaritam Euh, euh, l'attitude di la nëbb yenn yi. parce que li xale dul comprendre boo nekkee mag ci nga koy comprendre. exactement souvent damay jël benn exemple bu ndaw ci euh, bi may nekk xale balaa ma doon jéppi sama papa ak sama yaay rek ba ak ba pare ñu ne demal sieste. Ah bi ma màggee. des fois damay nam sieste il m'arrive de dire ngir yàlla sieste dama laa bañoon bi ba nekkee xale ne sarax ma ñëwaatal <laughs> c'est-à-dire il faut nga màgg mhm. pour nga xam ni lu ñu lay tere nii ngay rebelle wu euh, ci sa ci sa avantage la nekk surtout la fin si interview bi mu doon def dafa wax wax bu am importance parce que ne mm. avant da nga doon xuloo sa camarade ci cour école bi ci cour école bi la yem bu ngeen delloo ci cité bi après vous réconciliez mm-hmm. tout mais léegi da ngay xuloo ak biir école bi ñu humilier la mm-hmm. filmer la dugal la ci biir réseaux sociaux yi partager la loolu gis naa ko léegi nit le pire c'est quoi am na xale yoo xamante ils sont pas vraiment équilibrés gàcce boobu daf leen di finalement am nañu ci xaru en fait donc c'est ça le pire dans oui il y ait plus de contrôle parental oui il faut qu'il y ait plus de contrôle parental il mm. quitte à connaître le mot de passe de l'enfant voilà que ça doit être la condition sine qua non pour ouvrir euh, euh, un compte que ça soit Facebook ce soit Instagram ou Snapchat parce que léegi phénomène euh, yëpp la. am na sax périscope benn bu bees. oui parce que moi j'ai vu benn étude boo xam ne dañu ko def ñu ne xale yu juddu léegi comme dañoo judd ci ère nouvelle technologie. seen ay xel mooy gën a. non euh, da ngay ñëw ndaw. y a des tablettes faites pour des bébés de 4 mois. dañuy gën a dañuy gën a dañuy gën a ñor sax seen ay. Euh, bien sûr yow ah. yow yenn saa yi fi ngay nekkee naan non damay def ni dafay fekk ñoom romb nañ la ñoom romb nañ la ba ba taxawee nee di la seetaan nga jox leen sa téléphone mais c'est ça nga jox leen programmé en œuvre pour ñëw manipuler téléphone bi. sans te te te comme c' comme àdduna c' comme mbedd encore ni mu amee ñu baax noonu la amee ñu bon. y' a des pédophiles y' a des arnaqueurs. Mm-hmm. y' a des a a des a des bandits. Mm-hmm. Euh, y' a y' a mm-hmm. y' tellement de euh, yu bon yoo xamante ni. yenn saa yi da ngay gis par exemple kenn donc soyez encore vigilants chers parents. par rapport ak seen ay doom même par rapport ak très euh, vigilant très très très vigilant. oui beaucoup rigueur même bu fekkee parent bu jàngul nga. du ñàkk <laughs> ni mairie bay comme ni affaire technologie. xale appel la mu jàppale la a parce que c'est un couteau à ah. na la ragalee xel. comprendre nga na la ragalee mais par exemple même pour artistes yi ah, nit ñu am tournée et tout da gis kenn koo xamante ne nii tu vois euh, les photos sont disponibles sur le net. Mm. c'est tellement facile d'aller sur Facebook ou sur Instagram tout ça créer un faux compte Pape ah ça moom ça moom di ko di ko di ko entretenir. mais di si def lu la neex. ah ça à chaque fois que Bijou wax ci damay jël wax ci parce que ça m'intéresse man saa yi ma bindee Pape Cheikh Diallo je vois lu toll dix comptes yoo xamante ni yàlla mi ñu tiim wallaahi barki démb rek laa envoyé benn Pape Cheikh Diallo message ne ko toi tu te pour Pape Cheikh pourquoi <laughs> ça mais mais tu sais je vais te donner aussi une information ah. mais c'est fait je vais te gis nga Doudou mi ngi fi invité woon le jeune mhm. Doudou mhm. il y a un jeune qui a qui a créé euh, une chaîne YouTube di dundee di dundee ci ay chaîne gars l'a interpellé gayen bi ne ko mais tu veux que je fasse quoi et puis en plus l'autre a l'audace de lui demander comment il peut monétiser les vidéos de Doudou <laughs> oui euh, autre chose man mës nañ ma taajte sante benn gel euh, euh, euh, bu doon wax ak un certain Pape Cheikh Diallo ce Pape Cheikh Diallo ne ko daf koy may benn artiste pour mu nekk faram après finalement ñoom ñaar gisante wuñu mu am coow am clash la oh. fille est partie voir une de mes tantes boole ko ak man wee Pape Cheikh moom laa doon waxal finalement daf ma saaga alors que deal bi moo nekkoon mu may ma diw et tout ça et la femme m'a convoqué xaw ma xaw ma xale bu jigéen bi compte bi moom moo ko musuma ko gis et tout ça et elle tombait des nues y en a tellement donc bëri na yu positif mais yu négatif yi alors j'en profite nit boo xamante ne se fait passer pour la fille du président Nguesso la nièce de Denis Sassou Nguesso mm. mais elle utilise mes photos bu fekkee mun ngeen photo bu ma dugal da koy jël dugal te man daf ma bloqué donc je peux pas parce que je sais pas pourquoi elle utilise le compte dañ ko koy wax ne ko ce n'est pas toi tu n'es pas bijou moom aussi mu profité bloqué leen. bloqué leen si si mais sama xarit yi si compte boobu yëpp mun ngeen ko comme ça Facebook. amplificateur négatif. voilà amplificateur négatif positif comme dans toute chose il y a un grain de positif et un grain de négatif. voilà li gën daal mooy jël si euh, li ci baax. Euh, voilà équilibre gën a vigilant nag. Mm. parce que Facebook quand même il a beaucoup de paramètres. Mm. Snapchat bon ça Euh, Snapchat sax je pense que soo nekkee adulte adulte rek nga ko war a mën a utiliser. Euh, Instagram pareil. Periscope nag moom Periscope damay wax parents yi. non. boo leen gisee Periscope si seen téléphone doom. Oh, boo yóbboo ngeen supprimer ko. Mm. c'est pas bon du tout. Oui, il faut être vigilant, voilà. il faut être vigilant. On il y a deux ces vidéos C'est vrai que c'est un débat qui est très très très intéressant. Je pense que euh, mën nañ fi fanaan di ko waxtaane parce que léegi dëkk bi da àdduna dafa dem ba dafa mm, euh, soppeeku mm. euh, ñun liñ ñi daan yaree bokkatul ak ni xale yi di mm-hmm. yaroo léegi. Donc faites mm-hmm. très attention, soyez encore très vigilants par rapport à vos enfants. Merci Méri Diouf. On retrouve replay bi sur ta page officiel Facebook wala ci YouTube bi euh, slash TFM parlons à présent